ginnaaw ba ñu ko taxawalee ci fukki fan ci weeru janvier njiitum réew mi Macky Sall jël na ndogal ni ki démb xoolaat waxtu yi couvre-feu bi di tàmbali jóge ci 9 ci guddi jëm ci wi lii nag nekk na loo xam ni dawalkatu bus 57 bi di rafetlu ginnaaw bi mu dellu si waatee ci jafe-jafe yi ñu doon jànkoonteel. couvre-feu bi da doon commencé 5h du matin ba ay boobu da doon sooxew suñu liggéey bi ñu bari. seen liggéey day dem ba si vingt deux heures vingt trois heures léegi président def ko vingt une heure te vingt une heure ñu bëri arrange yu leen parce que am ñoo xam ne quatre quatre heures la ñuy wàcc du la waroon wàcc ay vingt deux heures léegi suñu wàccee quatre heures di njëkkalante si oto yi des fois dina am oto embouteillage su amee ah da ngay xool ne quatre heures gi ci suñ ko wàcce avant ñu yegg seen kër ay dix jot du leen arrangé seen seen liggéey bi daal ñun de gis nañ suñu bopp moom wax dëgg parce que vingt et une heures lañ ko defoon des fois avant dix-huit heures sax ñu wàcc toog suñu kër xam nga suñu jëndee suñu reer pare nañ ci moom mooy loolu. waaye nag gannaaw yokku ne ko moom dañuy gën a arrangé parce que boobu laay gën a liggéey bi gën a dox. ci transporteurs yi. kàddu yi doon benn ci kanam mu dawalkatu taxi bokk-bokk yi ñoom ñii di daw diggante Liberté 6 ak Rufisque jàpp ni lii lu waroon njiitum réew mi la. bon il était temps ñu ñu ñu ñu ñu dindi couvre-feu bi sax parce que sonal nañu trop dañuy da ngay dem liggéey wàcc donc nga yàqamti di ñibbi donc buuxante bi ak ñoom li ñuy tax ñuy alléger loolu tax na ba day andi beneen complication parce que imagine toi. yow yaa ngi yàqamte war a wàcc dix-huit ah ngay buuxante pour jéem a àgg sa kër balaa vingt une loolu métti woon na trop donc bu ñu ko bàyyee donc dina permettre les gens ñu xaw a féex xaw a libre tuuti quoi donc dina permettre circulation bi aussi xaw a tane quoi parce que mais avec couvre-feu bi moom sonnoon nañ trop quoi surtout circulation bi embouteillage yi ak euh, njëkkante bi métti woon na daal métti woon na mais avec sa bon yora aura une amélioration. allègement bi moom baax na moom parce que boo xoolee diggante vingt et une vingt heures ak vingt et une heures danoo jege mënoo cee liggéey dara diggante boobu dix neuf xam nga embouteillage bi njëkkante bi balaa ngaa dem di yebaat fekk day fekk. fees na dell mais quant bu dee moom li président bi moom li mu def nii dañ koy rafetlu ci loolu parce que euh, bu mu ko yóbboo ba minuit rek yaakaar naa ne ki war a liggéey te liggéey tax laa jóg non minuit baax na moom minuit mun ngaa gaare sa sa oto tëdd nelaw nga mun a teel a yeew mun a kii moom lu mu def nii nii nii da yéex a def bopp ñun jàpp nañ dafa yéex a def lii doo bàyyi ba nit ñi nekk ci souffrance nga bëgg a doog a nga doog a indi sa beneen décision mais dafa ko waroon a teel a def mun a soulager wu population bi. taximaan bii di Ibou Balde ñëwaat ci ñaawteef yu ndaw ñi daal di def moo ngi leen di ñaan ñu xoolaat ni ñuy wanee seeni nakaar ndax de d'essence yi ñu yàkkate indi na ay njeexital ci seen wàllu liggéey. léegi euh, station yu bëri noo seulement dañ leen yàq ñu su bëri aussi par crainte dañoo tëj seen station bi. donc loolu beneen problème lay andi donc yow yaa ngi dawal sa oto di ragal en même temps ngay panne gasoil wala essence si yoon bi donc yaa ngi xalaat ban station ngay ngay dem nga nga approvisionné loo xamante ni dina la mën a jàpp te loolu boo yorul bu xaalis boobu aussi beneen problème lay lay andi donc loolu inconvénient bu énorme la andi quoi franchement donc bu ma sañoon beneen yoonee gars yi bu ñuy manifester nañu épargner euh, établissement su yenn yi muy muy station muy kër yi muy muy bagage jaam ñuy yàq daal vraiment loolu moom euh, je déplore nag man je suis d'accord à la manifestation mais pas au gaspillage au saccage aussi loolu moom d'accordu ma si quoi. passager bii nag moom di gën a xóotal wax ji ci gis-gisam ndogal bi amul benn njëriñ. non man moom jàpp ni am na sens quoi. parce que avant sax lii nii avant muy alléger couvre-feu bi nii sax gars yi bàyyi woon seen xel sa nekkatu si woon parce que daan circuler ba ay 22 heures surtout avec manifestation yi amoon nii da gars dañ demoon ba ragaluñu woon sax ay policiers day ak ñoom si mbedd mi da gis ñuy circuler ba benn heure yi même lieu yi daan teel a tëj daan gënoon respecté gënoon tiit sax mesure bu dalee seen kaw dina métti si ñoom mujj gi dañoo bàyyi woon comme ñu daan dox seen soxla naaj moo tax allègement bi nii sax ñeneen jàppuñu ko parce que ñeneen da ngay wax ñoom sax ñu la couvre-feu bi jeexoon na bu yàgg lii nii dañuy ñëw pour ko nii si kaw rek parce que Macky moom comprendre na sant yi gars yi moom gëmatuñ ko noonu carrément. fii ci garage Liberté 6 njabooti taximaan ak dawalkatu transport en commun yii lee ñoo ngi rafetlu gii leen ndogal ñoo ngi ñuy xamal ni lii lee dafa nar a gën a yombalal dem beeg dikk bi ci ñoom ak ci clients yi.